dëggu gi dëggu gi mu toog ba yàgg muy def nii dër bu Đi ne di ko dem ba fi dañ ko laaj preuve ku ñu laaj ay preuve kay kon kay ngay kenn ji ñu la mbir mi da nga ko waxal sa bopp ne soxla preuve mu ne may mag ñu ne ko jox ñu preuve jox ñu preuve wallaahi maam dina Mouhamadou Bousso wax ne Fatas wax im wax yi daal di koy def taxmis juróomeel Fatas mooy way ñeente im wax yi daal di def taxmis jël bay na téere mais way yi tëlee moom juróomeel rek ko ci ñu ne xam nañ ci yonente bi ne xaw laa la nañ xam nañ ne Muhammad Rasulullah xawaat dafa daje ku la ma jëm lépp lu tedd lii war ak minit te wa jalaalati tey ci gën a mag yëpp ngeen te wa jaa ñëw na bi aayaat yi ak ay kéemaan ak ay aay maxat yoo xam ne farma ku la xaalati nee na lu ñu fi wax moom boo waxee ñëpp la am de gars yi waxoon nañ am de waaye laay wax am de wax yan waxi kan moo de hmm? yor néew bàyyi laay wax ne tudde leen yàlla gars yi ne déedéet du wëy ah. jigéen da dem jàpp gars yi ne déet lu mujje wallaahi tëdd da ngay Seydina yaa ngi xam ci fii mu tëdd nii demal taxaddasa zaatan summa xatan wa turbatan yàlla sellal na jëmmam moom Seydina yemu ca mu sellal pàkkam yemu ca mu sellal xabru moo tax ku fay dugg def tànk meli na fa pàkk na fi mu tëdd am na tur ay karo fan moo am pàkk loolu mooy Muhammadu Rasulullah teg ndax ñu dañuy féexal pour nit ñi xam ne ñii ay safkat la wallaahi li ñuy wax amuñu ci benn kuréel li doom laay dañ ko diin ki ngeen di dàgg ak diin ki ngeen di wax dàgg ak diin ñu ci dëgg gi dëgg gi Biden đây ba ca lại ñëwee ñëpp xam lại loolu như ngeen jël rồi ờ, lên ko jël tôi cứ wër wax ji ji la demee đây nag man ngeen di àgg ak da ngeen loolu te man toujours moom leen ngeen bàyyi ko waaye lu koy wàññi day am ndox rồi wallaahi moo tax ñu war a def attention ci ndax yii ñuy wax nii daf na ñor de ndax bu fekkente ni dafa am koo xam ne saa su nekk mu ngi toog di wax lii ma wax nii wat dara imaam limaam na nag ñu daan liggéey ko ci téere fii la ko bàyyi yónni ci àll bi nekk demal nga daggal ma ci garab bi utal ma ci ñax bi bàyyi ngay yor jaase ànd ak mag ñi boobu ba déglu leen bu baax boobu maam ni maam ooteegul garab bu mu jóg amaana ngeen di wax garab yi di ko wax naan amaana amaana am si la ko ñaar ko dëggu moom ci bàyyi lay ndax lépp lu mas a gis nag di xaar ba waawaal di ko dégg yow nag moom bu la neexee nga toog waaye am na koo xam ne waalo la xew-xew bu amee ci dëkk bi maire dëkk bi ñëw ministre ñëw bu wàññi dara xew ma ngi xewle fii ci yow maire yi wax na fi ñëw bu sous préfet ñëw rek kilifa préfet bi ñëw loolu kilifa gouverneur hmm. ministre de l'intérieur hmm. bàyyi yaay leen ñoo kata hmm. yow xaw ci baatu taabi diine yi yaa nga ca xaw ma ñaata position mais xoolal ñi dara say naani ma kii ma lay wax di maam Aliou dox na ma yàgg sampee dama yónnee Rasulullah wallaahi am na geneen góor bu nekk fii ci tëngi ñu koy taf si Ibrahima Mbaye bu la nee ngeen dem ngeen gis loolu yéen ñëw daan na ma ni àllaay sama xam na lu kaar bi tabax kaar la nag ngeen di quoi loolu maa ba tous les temps. sëñ bi laay maa di ne mooy dana ko tuddee maam Seydi mosul teg seen seen sàmm neex maam Seydi nii mosul gisee naa kon bi mu koy jox cinq cent mille xam nga ànd kër yi du ñàkk loolu la waa ji wax nee na archive yaa ngi archive nag bu dee muy yow yaa koy dem nga ko dugal fii dafa ko ah loolu gën a wóor archive yi xam ngeen ngeen amoon bu ngeen amoon accès bu doon dëgg di lay ngeen photocopie ak archive yéen ñi mujj def ci archive archive ñi nga doon jiite waa laa yeewu dëgg la dëgg la ko ñu ngi fii tagg ay nit élève la ñu woon ci waa laa yeewu billahi la dañu ko def université di naan ma naan billahi wallahi élève Pape Atam Sire di koy waa dëgg la woon Pape

ndax am na ñoo xam ne yàlla nee na bu ñu waxatee dëgg sax dootul doon dëgg day fen la loolu waral ñëw ci loolu tey yooyu dañ koy bàyyi lu waat xel ñëw leen ngeen laaj léegi affaire bi ñëwee nit ñi dañuy jënd loué appartement pour deux jours ci deux cent mille ak lu pour am fu daal eh lii ngeen di xeex yàlla de waaye imaam sax waxoon na nee na waxam gën a sax nit ñaa ngay yokk te bés bu yàlla sax këri su dee yéen daa ko yàlla si lañu des nee na leen kër bi lañ ko seetaan ndax sell bi ak yokk bi beneen bi na ngeen góorgóorlu yow sàmm ak démb jaay bàyyi leen ci sunna seen ku ci am doom bàyyi doom ci def am jullit ak ak ak bu xaafal sa yéen boo ko defee rek koy bàyyi def de boo ko bu laax ko def de te booy dem jàkk itam fexeel bu mu yóbbu ci bu ko defee roy bàyyi daway ndax leen nee woon na mer du tax ma yóbbu dinaa ko bàyyi da ngeen ko jëm kon nag su fekkente ni dëkk bii dafa am lu ko moom ak pour kay moom la su ko bàyyi lay moom kenn mënu ko amoon ndax dëkk balan cay bokk da ngay nekk ci cooye dëkk ci ne quatre communes su ngay dëkk Dakar wala nga dëkk Gorée wala nga dëkk Ndar wala nga dëkk Tëngéej fii pour bàyyi lay moom si cooye la portion di aslan Anta yow mii ñuy xeex xëy na yow yaa gën a jekk gën a yaay njëriñ yow gën a moom. alhamdulilah waaw waa Louga sa yaay lañ fiy tudd comment war ak sa baay ak yow mii tudd. yan lañ fii si kanam. am de. Thank you. C'est doon wax rek ci C'est moom di yàlla seet beneen seet C'est beneen ko c'est jii ndax téere di ma la wax c'était en mille neuf c'est lay leeral mbir te fi ana والله معي جلس من دين جرب عليك ما يقول إذا جلس من دين والله سب جو سب جو بعد يوم يوم مكان سب أو أنت تجيب عصر سيدي بابا والله لا خذ ما تبعني فوق وعليه فلم يجي مكتسب سامع سامع جاي ولا جاي دم جاي قلنا li ngay wax ak sëñ yi ngeen di def yëpp ak réseau yëpp li ngeen fekk doon ndax bu dee xool. seetu ñay koy daaroo. kon nag yow Samba Ndiaye Thierno Ndiaye. ndax wax yii mooy wéy bu bañ. bu tee waxi maam bàyyi laa di ñëw wii daa di dem. waaw sa wax ji mooy wékkoon te wàññi am bàyyi la day bi daa ko di dem ci yoon nen bi ndeen day bi daa ko di dem ci yoon nen bi sa wax ji mooy wékkoon tuddee ko imam Baye Laay di ngay lii daagu di dem cëy yoon nen di mooy wetal tuddee ko imam Baye Laay di ngay lii daagu di dem cëy yoon nen sa wax di mooy wetal tuddee ko imam Baye Laay di ngay lii daagu di dem cëy yoon nen sa wax ji mooy wéq wañ ñu tee waxi maam Baay Laay ñëy lay daa ko di dem ci yonent bi sa wax ji mooy wéq wañ ñu tee waxi maam Baay Laay ñëy lay daa ko di dem ci yonent bi sa wax ji mooy wéq wañ ñu tee waxi maam Baay Laay ngày quay đã một niềm đêm chi ân nhân đê sao mắt chi quay về quên lúc kia hoa thì mang bay lại ngày quay đã một niềm đêm chi ân nhân đê chi quay về quên lúc kia hoa thì mang bay lại ngày quay đã một niềm đêm chi

Abuwa la taban kaifa Amém.